Diallo assis côte à côte avec le porte-parole du calife général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Al Amin doyen. Donc c'est un moment important mais fort. Mais c'est un moment important fort. Vous avez vu tout de suite euh, à l'arrivée de Seigneur Abdul Al Amin, accompagné, soutenu d'un côté par son jeune frère Seigneur euh, Babakar Si Mansour et euh, Seigneur Mansour Si Djamil. Tout derrière il y avait Seigneur aussi Si toute la famille ici derrière Seigne Abdelaziz pour venir accueillir la délégation gouvernementale, délivrer le message euh, du Khalif général de Tijan, mais aussi écouter euh, le message du président de la République, à travers son ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est un temps très fort parce que c'est le moment d'abord de faire une sorte d'évaluation de ce qu'on a fait jusqu'ici. Il faut rappeler tout simplement qu'il y a eu un service spécial à Dakar, au ministère de l'Intérieur, où le gouvernement avait pris des engagements pour une organisation parfaite du Gamou. C'est le moment maintenant de faire le bilan de cette organisation-là, mais un peu aussi de livrer le message du président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, vous voyez le représentant du Khalif des, des, qui est là, à Donc toute la famille religieuse du Sénégal est là. Nous avons reçu tout de suite le représentant du, de Seigneur euh, Sidi Martar Et, là, ça veut dire tout simplement que le Sénégal, quand même, est un et indivisible. Il faut le faire. Et sur le plan religieux, les familles, quand même, se concertent discute beaucoup en interne par rapport aux spéculations de certains, de certains, de, de, talibés. certains talibés égarés. Mhm. Donc la cérémonie est un temps très fort de communication, une sorte d'évaluation de ce qu'on a fait mhm. et de se projeter dans l'avenir par rapport au projet du président de la République mhm. qu'il tient quand même à, à, à, à réaliser à, Dakar. et ça, ça est un bon talibé mouride qui est à côté de Zensidi Ahmed du Ibn Abdelaziz Malik Dabar, qui organise à Jaksao, un grand gamou

xalifa général Tijaani di ko nuyu bu baax moom Seydi Abdou Aziz Al Amin di ko ziara di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér ci darajay sëkk ba tëdd ci biir mu nawar di nuyu bu baax Seydi Boubacar Sy ibnu Alaaji Mansour sama doomu turandoo di ko ñaanal li ma ñaanal magam du baax jooju xaritam boobu soppeem boobu jarbaatam boobu moom itam yàlla may ko wér ak gudd fan ak Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy rak yàlla may ko gudd fan moom itam ak wér tey nag mooy cérémonie officielle bi am nañu xam ni à travers le monde entier kenn dootul wax rek Sénégal كان لوح أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا دري وقت أطلع غير الموند أنتي نون نيب نون نونو جوات بخمس سيد أطلس العمي مجمع دي خريطم دي صوبم دي شوف أحمد تجاس المطوم ممكن وانا قوات السرقال يب أكثر فيهب كن سيماني أدري بيجاس نوي كان لوح رك أوسانم كان لوح بيسانم لمن أنتي yi xam ni ñoom ñëpp duñu aju ci ki xam ni na seen ak biir ak bu jubee ci biir Sénégal du kenn du sunu maam si si Hadji Mbaye ñu aju ci moom ñëpp soo woote bi dégg nañu ko ñëw na ci ndigalu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si ilmu toog kon nag fii di la ziar lii lan ma jox comme programme si imam Ahmed bu mosquée Ousmane Ibn Affan bu New York aux États-Unis moom ci bopam insha allah moy jàng alxuraan su paré sunu dom sunu xarit sunu soppe nu tuddee ko sunu mam alhaj amid Kan di serigne Abdul Hamid si dana wax gan yi xamni no fi tew si su paré ki xamni mo moo jóge ca Mohamed Siis wóllëre Maroc ak mam keur mam Cheikh Seydi hajj malik yagna

ànd ak gouvernement bi yëpp ak premier ministre am ak soxnaam Marème Faye ñoom ñëpp fi la nu julee àjjuma tey nag mu yebal ki xam ni affaire religieuse yëpp sunu bopp tabaraka wa taala ci loxoom la nekk président jox ko ko moom ci boppam mu sànni message bi ko chef de l'état jox su paree nag sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe Seydi Abdoul Aziz Al Amin dalal gan yëpp loolu daal mooy programme bi xam ne jox nañu ma ko alhaji Amin bisimilah si dégg nga noonu El Hadj Mansour. moo doon wax programme bi noonu lay tuddee. bisimilah noonu la nee na alaaji Amid mooy jël kàddu gi ngir daal di wax délégation ci fii teew ñi ngi wax sax imaamu New York boobu xam nga kon am na solo ku jógee ca New York xam nga États-Unis moom ñu ci bëri danoo jàpp ne lislaam moom mm. ak terrorisme lañ koy méngale ak yu nu mel kon bu amee ab imam bu fa jógee ñëw teew fii di saafonte ak diine yi nekk Sénégal doyen kon am na solo trop xëy na moom bu demee dina wax ni lislaam comme l'islam effectivement euh, Chérif l'islam est une, illusion de paix mhm. celui qui vient des États-Unis qui était tout de suite avec nous mhm. pour décliner un peu ce qu'il pense du Gamou il dit vraiment qu'on pratique le, même dîner à, New York mhm. donc c'est un plaisir plus de découvrir euh, d'abord le Gamou et ensuite de voir comment, apprécier euh, d'apprécier la ferveur des, des, mhm. Je pense que ça aussi c'est important et c'est films c'est un fort symbolisme. Mhm. Et il va quand même euh, faire ici un récital de Coran. L'imam qui est venu de New York, je disais tantôt que la perception de l'islam aux États-Unis, bon, les gens pensent que c'est une religion de paix, de, de, violente plutôt. Ils pensent que tous, tous ces religieux-là sont des terroristes, c'est ce qu'ils disent aux États-Unis. Donc c'est important de voir un imam qui vient des États-Unis venir ici à Tiwawon et il va tout d'un moment à l'autre nous faire un récital de Coran qui est important puisque le Coran c'est le message de Dieu, Allah, son prophète, grâce à qui nous sommes ici à Tiwawon pour commémorer le jour de sa naissance. On va l'écouter alors. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم يلقونه سلام وآخر أعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي لك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم njàngam alxuraan mi baat bi neex na trop. xam xam nga arab yi dañu am jagle. dañu am jagle boo déggee ni mu ko jàngee rek nga xam ne lu am lu am solo la. Hmm.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندقلوا الخليفة العام سيد الشيخ متيجان سي تي تخوايو ركم يباحي نكتي سنو دي السيد عبد العزيز الأمين دي سرين بابكر سي ابن الحاج منصور دي سرين الحاج مالك سي ابن عبد العزيز أكس mboolem njabootu Seydi El الحاج مالك سي mi ci ñu ngi dalal gan yu tedd yi fi daje ci turu njabootu Seydil Hadj Malick yépp di la feeñalal gan yu tedd yi fi teew xam naa ku lim juum waaye mënul ñàkk ci bëccëg bu mel nii ñi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw loxo ak ki nu faggul bis bi ci Sénégal mu di Seydil Hadj nu feeñalal la délégation yi fi teew nu jéggal nu bu fekkee ni sunu làmmiñ damm na ci ñàkk tudd ñenn ñu fi ne waaye jàpp nañ ni ki moom bis bi gis na ñépp Doré ko délégation gouvernementale bi fi nous nu wax le ni Abdoulaye Daouda Diallo mo délégation gouvernementale du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ñi ngi sa Mohamed Martar Sissé, du directeur de cabinet du président de la République. Andek, M. Alioun Saar, du ministre du Commerce, M. Oumar Youm, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, du porte-parole au gouvernement du Sénégal. Il y monsieur Oumar Gueye ministre de la pêche et de l'économie maritime Il y madame du ministre de la promotion des industries Il Mansour Eliman Khan, du ministre des infrastructures et du transport Ngandak madame Fatou Tambedou, ministre de la restructuration des zones d'inondation M. monsieur ministre conseiller auprès du président de la République Ngandak monsieur ministre conseiller auprès du président de la République ak madame Amsatou Sow Sidibé mon ministre conseiller auprès du président de la République Nous avons ce ak ce Fall du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire du dôme Tivaouane Nous avons ak monsieur Seydou directeur de cabinet adjoint du président de la République M. Mamadou Ibrahim Lo directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur M. Léopold Wad, directeur général de l'administration territoriale auprès du ministre de l'Intérieur M. ngi Andak directeur de la protection civile Sadibou Diop du directeur des affaires générales du ministère de l'intérieur Et monsieur Mohamed Fall gouverneur de la région de Thiès qui sa supervisé superviser l'administration administration bi nous, ci Nous gi Nous ci turu njabootu Seydi Hadji Malick mi ngi ànd ak monsieur Maguette Diallo du préfet de la région de Thiès de du préfet de la ville de Tivaouane mu ngi ànd ak Maodo Malick Mbaye du directeur de l'ANAMO agence nationale euh, de la maison des outils Nous wax la yit ni ci walu corps diplomatique bi ni ñoo fi Excellence Monsieur Lamine Cheikh Mohamed Fadel ambassadeur de la République de la Mauritanie chef de délégation Nous taxaw ci mom touti ndax yalla dafa def mu nek xaritu kër Seydil Malik

Nous Santoko, ko gërëm ko ci di la wax excellence Doudou Bami Diagne di ambassadeur de la Gambie mi ngi teew ñu wax la excellence Hassan Ali Bakhshi di ambassadeur de l'Iran mi ngi dehors de ak délégation bu yaatu Juge Iran ñeu représenter république islamique d'Iran fi ci Sénégal Nous wax la ki d'Algérie modé Ali Boukhaïkha di conseiller ci ambassade bi monsieur Cyprien Dross et Georges Catino nous togal l'ambassade de Roumanie ñomit nek conseiller ci ambassade ambassade d'Égypte M. Haïfom El Ashrani moo fut représenté ambassade des Émirats arabes unis M. Moustapha Pouy représentant de l'ONG Human Appeal International Qui le secrétaire d'ambassade nous sommes le secrétaire d'ambassade bu Arabie Saoudite mi ngi Nous nu délégation étrangère yi nga xamante ni nañu imam Ahmed Douaïdar des États-Unis nous sommes ñu dégg mo jang euh, ayatul alquran yi mi ngi imam Moussa Mohamed Majdi wax la ni appel islamique mondial teew na fi ki fi représenté par monsieur Abdoul Fattah Nous avons la délégation professeur bi Ahsa Azharia d'Égypte ñoom it fi de même que la délégation des professeurs de la Mauritanie. Nous avons l'école ni école Yavou Salim une délégation Nous avons la délégation Ayoub Sultan Théonafi. na fi ñu la délégation bu institut islamique social Théonafi, délégation Dar al délégation Fatah du Liban nous wax la père Bassam Eyid, délégation de la mission libanaise teew na ci bis bi ñu wax Cheikh directeur de l'Institut Malayni Mohamed it Nous na ñu wax la aussi ci délégation diplomatique accrédité à Dakar le chargé d'affaires de l'ambassade de la Palestine le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan Théon Tu vois le parlement du Sénégal l'Assemblée nationale nous faisons le ñi représenter le président Moustapha Niass En na délégation bi chef de délégation l'honorable député Abdou di sa honorable député Zator Pay. honorable député Cheikh Diouf dit di honorable député Tierno Bokoum honorable député Ndeifatou Fatou Diouf honorable député Ndei Lucie Sissé, honorable député Moustapha Ndiaye, honorable député Amadou Tidjantala, honorable député Djibril Loire, honorable député Yeta Sow, honorable député Sirangay, honorable député Ney Awamboj. Nous avons représenté fils Mboko Moubar, Moustapha Nias ci Assemblée nationale du Sénégal Qui... conseil économique et social yabal délégation bu solo ...qui euh, ko dit di euh, Nous ni ni parti politique yi APR PDS AFP

suñu Muntaga Daxataal bu Louga ñu wax ni la sa mu baax ma di Serigne Sidi yabal fi délégation bu am solo Koko ko di Serigne Abdul euh, mu ànd ak Serigne Mbuub mu ànd ak Serigne Mbuub nu wax la ni ce mbokk mu bax mom di son excellent monsieur Mustapha Cissé on ne fi représenter fi famille Amadou Cissé Pire wax la ni la famille Cheikh Boukounta bu Ndiassane teew fait fi di ki leen fi teewal di Mohamed Kounter. Kunta ñu wax M. ni M. Abdoulaye Makhtar Diop du grand Serigne de Dakar teew Nous fi ñu wax la ni la El Mara Ndiaye di Khalife général Njare Waqe moom la délégation Foulado, qui est représentée du di Hab Wahab Seydi délégation famille Andoulaye Ternou Moustapha Dramé moo leen Nous allons ñu wax délégation amiru jamaatu Rahman teew Nous fi ñu wax leen imam Fall représentant fondation Khali Omar Fall bu Pire nous Elage Ousmane Diop Yahya président des Frères de Dakar Théonafi, Nafi, fi délégation bu nga grand Sérigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne Mokofi yabal Nous avons la ni la Ousmane Ndiaye imam ratib de Ziguinchor Théo Nafi. Nous avons wax la Tafsir Sakho représentant la famille Eliman Sakho Théonafi. Nous avons la Mohamed Lamine Diop représentant famille Elhaj Abdoulaye Diop fils Nous fi Nous rek avons autorité yu nous avons Aliou sa le maire de Théonafi. na fi Seynabou Touré présidente conseil départemental de Tivaouane le maire de Tivaouane Moudi Sodom, Mohamed Simbeng, Diagne Nous feeñal la délégation marocaine bi mom lañu mujjé di se représenter fi le sa majesté le roi Mohammed VI nekk ñu cher ci famille Kër Seydil El Hadji qui dit ki délégation bi di le directeur de cabinet du ministre marocain des Affaires religieuses, dit Abdoulatif Bardouri, dit sa en tant délégation pour am solo yo xamanteni ni ñi ngi Maroc ñeu fekk ci bis bi et bokk ak ñun yek yek ci li ñu ñu feeñale it ni Seydina Issa Laye yegsi na moom it représenté fi famille suñu maam Limaamu Laay nu wax la it ni ci parti politique yi euh, Cheikh Tidiane Gadio di yor euh, mouvement MPCL teew na fi ànd ak euh, euh, yabal fi délégation bu am solo vous xamante ni que ñu wax Malick Diop Abdou Aziz Kane Ibrahim Mamboub, ak Ndiogu Diop Nous ko fi teewal nu wax la ni la ci famille religieuse waa kër Omar Oumar Thierno Nourou Tall moo leen fi teewal di sa doom di di doom ci sa mag Seyid Bachir Tall loolu mooy listu délégation bi ñu ma joxoon nu tudd leen fi nu فاتليدني شي عبد المنعم زين ديريكتور سنتر كولتورال شيد ليباني عندك سنو بابرو محمد باروت في موم دونكو من فاتي ناخ سي نجابوت جي لا بوك ناخ دومو سيد الحاج مالك غير يالاك كل رجي مو سيخون اك سنو مام جوباخ جي سيد عبد العزيز الحاج عبد العزيز سي دبار ان يالا يوكو ليرام Nous wax la représentant Cheikh Amar aussi Théo Nafi, fi nous Kader Ndiaye liste délégation bi nous, waxoon nous présenté ko bu nous manqué manqué ci man la dit que bi que sallallahu alayhi wa sallam gis nu sant leen leen wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf si Malick délégation yëpp am nañu xam ne nag du ñëw ca fekk booba nu bind liste ba pare waaye Seydi Abdoul Aziz Al xam na ni ñëpp àddina bi yëpp senegal yëpp Afrique yëpp ak le monde entier ak européen yëpp fu nit nekk di jullit ñëw nga wuy si ko léegi nag na jox ku xam ni réew mi yëpp ak fudul Sénégal xam nañu relation sunu maam kër Cheikh Sidi Alhaji Malick ak le roi Hassan II ba mu jóge fi cofeel googa mu amoon doomam xaritam ki xam ni tey moo toog fa mu toogoon di Mohammed VI am ko ci njabootu maam Cheikh Sidi Alhaji Malick di kenn nag ci Seydi Abdoul Aziz Al Amin moom ci boppam moi yabal Abdou Latif mi xamni moy directeur de cabinet du ministre marocain chargé des affaires religieuses pour mu ñew teewal ko fi kokuy di kenn Seydou Abdoul Aziz Alhaji Makhtar Kébé ñu ni bu wax nga ko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 شيخ أحمد تيجاني السي الخليفة العام للطريقة تيجانية بالسنغال معالي وزير الداخلية السنغالي ممثلا فخامة الرئيس مكي أصحاب المعالي الوزراء الحكومة السنغالية أصحاب المعالي السفراء الممثلين للدول وممثليهم أصحاب المشايخ والعلماء والمقدمين والأئمة والمريدين والطلبة والشباب والمحبين الوافدين على تيوان في مناسبة هذا المولد النبوي الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا وتحية مباركة طيبة وعيد سعيد السلام عليكم ورحمة الله kilifa gi فواحنا رك ne يكتي كادو يو نيو اك زياره nuyoo ak ziyaara jëmme عبد العزيز الامين اجنبوت جيب دلن وخني غامو بو يالا باركل اك فيت بو يالا باركل لا ييكتي جيمي كو سي نجابوت جيب كل فخر اعتزاز احضر بينكم مره اخرى في هذه المدينه التي اصبحت معنى من المعاني مدينتي أيضا أشكركم جميعا ونشكر فخامة الرئيس مكيسال خصوصا لما بذله ويبذله من مجهودات كبيرة في رعاية شأن المسلمين عموما في السنغال وشأن الطرق الصوفية خصوصا ونحن جئنا من المغرب ممثلين لأخيه صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله الذي يعرف الجميع علاقته بهذه الدار وهذه الطريقة كما بغيرها من الطرق الصوفية وقد أحسن المنظمون بأن ضمنوا في إحدى أعداد مجلاتهم التي وزعوها على الحاضرين وثيقة نفيسة جديرة بالقراءة المتأنية وهي الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين ملك محمد السادس نصره الله لجمع التجانيين الذي نظم مؤخرا في شهر ماي من سنة 2014 بمدينة فاس وهي وثيقة تضمنت كثيرا من النقط والأفكار التي تجدر دراستها ومدارستها والوقوف عندها لما لها من أبعاد تعود على أمة الإسلام بالخير فتبارك الله ميغي يكتي كادو يو خامني ميغي سي ريومي دي الحاج مكي سال ديكو سنت ci taxawayam bu rafet ci baye xel julit ñi nek bir Sénégal yeb ak mbollem turuq yi nga xamne ño fi nek di yëngutu ci tasawuf ñi ngi leen di sant bu baaxa baax neena ñom nak dañoo ñëw baye ko Maroc pour téwal fi ki nga xamne moy njitu rewma di Sa Majesté Mohammed VI mom mi nga xamne ne kenn réerewul buum yi nga xamne moko takke ak Sénégal ak takke ko itam ak njiitu réew mi ku ci nekk xam na taxawaayam ak itteem ak bàyyi gu mu bàyyi xel tariqa tijaniya ak mboolem tariqa yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu tasawuf nee na xëy na ñi nga xam ne ñoo doon defar majalla bi di majallatul fatih def nañ ci benn document bu am solo boo xam ne jaadu na yell na nit ñëpp jël ko jàng ko point par point te document boobu mi ngi bàyyi ko ci amirul muminin di sa majesté Mohammed VI ci daje bi nga xam ne moo amoon Maroc bu yàggul ci mois de mai ci 2014 bi muy document boo xam ne li ci nekk ci ay principe ak ay xalaat jaadu na jullit ñëpp jàng ko xam li ci nekk ndax bàyyi xel gu mu bàyyi xel jullit ñi أيها السادة في بدايات القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي قضى الله تعالى أن تظهر في مغرب بلاد الإسلام بل في مركزه وقلبه النابض مدينة فاس هذه الطريقة التجانية التي سيكون لها شيخ قائد مرب مسلك عالم ويقيض الله تعالى لها كذلك سلطانا عالما شريفا يرعاها ويخدمها ويقف إلى جانبها في الوقت الذي كان المشرق يعج بمشاكل وانقسامات وأفكار بدأت أصولية وانتهت متطرفة والتاريخ يشهد بأن هذا الصقع من غرب عالم الإسلام كله طور نموذجا لل الاستقرار والاستمرار والتعايش والسماحة والتوازن الذي جعل هذه البقاع كلها في انسجام مع نفسيتها ومجتمعاتها تعطي نموذجاً خاصا يمثله هذا المحور المغربي السنغالي الذي ظل محافظا على هذا العهد وهذه المبادئ وهذه القيم المتوازنة بين العقيدة والسلوك والأخلاق والشريعة وواقع الإنسان nee na ku nekk xam na ne ci bi ñuy tudde treizième siècle ci gàddaay gi tolloog dix-neuvième siècle ci juddu gane àdduna seydina isa alayhi salaam ci la yàlla dogal mu feeñ ci Maroc tariqa boo xam ne ki ko jiite moo di abul abbasi sayiduna ahmed attijaani alsharif radiallahu anhu mu tomba faak buur boo xam ne itam te te sidina cheikh moomu ku ci nekk xam ne ne yarkat la woon kilifa diine la woon kilifa gu mag la woon waliyu la woon nitu yàlla la woon mu tase yarkat la woon te boroom xam-xam la woon itam mu tase faag buur boo xam ne itam boroom xam-xam la woon yàlla baaxe ko mu dugg ci tariqa bi di ko bàyyi xel di ko sàmm di sàmm Cheikh na Tidiane Chérif radiallahu anhu di ko servir bu baax a baax ci période boobu bi nga xam ne loolu mi ngi xew ci Maroc boo demee ca Orient ci réew yi nga xam ne ñoo féete sowu jant fekk na fa booba ay mouvement ay courant ña nga fay xew yoo xam ne bi muy tàmbali ci njalbeen gi dañ doon woote fond fondamentalisme waaye ci fin bi lañu ñu mujje moo di ak ëppal ak weddi lépp loo xamante ne bi bokk ak lañu gëm di tatarruf bu mettee métti ba ku ci nekk fa tabarakallahu gis na la nga xam ne moom moo ca bàyyi ko te nee na yàlla dogal na bépp réew boo xam ne la fa nekk mooy soufisme réew mooma dafay dal ña fa nekk dañuy bëggante ña fa nekk dañuy joxante loxo ña fa nekk dañuy yéenente jàmm xol yi yërmande def ciy fees kenn du am xalaatu mukk yëkkati lu bon di ko def ci keneen ndax yar bi tasawuf di def ci xol yi loolu bi muy am ci Maroc فكنا سفان دمو أمتش أوريان وفي خضم ما يعرفه العالم من أمور يمكن للمرء أن يتساءل قائلا ماذا كان يمكن أن يكون السنغال بدون التيجانية بالخصوص وبدون هذه الزوايا الصوفية في العموم ci waxtu woowu mënoon nañoo laaj Sénégal lan moo naroon a nekk ak mujjëm bu fi yàlla indiwul woon ab tariqa tijaniya mu liggéey fi lim fi liggéey en particulier ak mboolem turuq suufiya yi nga xam ne ñoo fi nekk di def di def li ñuy def ci njaboot gi. fadilata الشيخ المحترم معالي السيد الوزير إن الخريطة المذهبية والعقائدية في العالم الإسلامي استقرت على وضع منذ عهود قديمة والناس سلكوا في مذاهبهم مسالك متعددة تميزت كل رقعة من رقع هذه الخريطة بطابع خاص مذهبي أو عقائدي أو سلوكي أو فكري الآن المساس بهذه الخريطة واستقرارها أدى في كثير من المناطق إلى مشاكل والمساس بهذه الخريطة في هذه المناطق أيضا لا شك يكون مغامرة غير محسوبة العواقب خطيرة التبعات خطيرة التبعات لأنه سيكون لها انعكاسات سلبية على مستوى الأفراد من الناحية النفسية لأن الفرد إذا ململت وزحزحت عقيدته وتشوشت صار يمكن أن ينتظر منه كل شيء سيء وتكون لها انعكاسات سلبية أيضا على المجتمع وتماسكه وتعايشه وتكون لها انعكاسات سلبية على مستويات الأمن والاستقرار nga xamne moy carte géographique bi nga xamne tay mo ëmb monde islamique dafa melne gox bu nek ak région bu nek la fa yàlla def moo di am nga particularité ci wàllu pas-pas bu ci wàllu soufisme am école boo askanu bu ci wàllu rite itam xëy na am nga rite boo xam ne bii moo xam maalik yi ngay doon wala shafii wala leneen fa tabarakallahu mu ci gàttal rek bu fekkente ni bii dañu bàyyi nit ñi di dugg noonu rek di def lu leen neex sàmmante wuñu ak seen i yëg-yëg sàmmante ak seen i pas sàmmoontewuñ ak réew mu nekk la fa nekk ci particularité dafay dama dem ba anarchie rek mooy am dara dootul baax mu ne fondement bi nga xam ne nag ci la carte géographique bu réew mu nekk war a taxaw pour nit ñi mën a am sécurité mën a am ndalte bu fekkente ne bii sàmmonte wuñ ak loolu itam ay problème rek moom mooy li nga xam ne bii moo cay bàyyi ko te dafay indi aventure boo xam ne résultat ba du mën a baax du tegu mukk ci yoon fa tabarakallah mune nit ki bu fekkente ni bi dañu dem ba yokkat ko amatul sécurité ci walu pass passam dama dem ba lamu gëmon ñu yëngal ko melne dañ ko gëssam ni ñuy gësame garab buñ démé ba ag fofu ci région bu ci nek ka fay dund ag ci lolu na la wóor ne lu bon rek moy xew ci aduna bi ci walu pass pass ci walu conduite ak ci domaine yépp لذلك فإنه ليس من العبث أن يأتي شخص عالم مرب مصلح كبير كمثل الشيخ مالك سي ليجمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة التي هي مناسبة المولد ومعلوم في الأدبيات التجانية أنهم لا يحتفلون بشيء أو بأحد بقدر ما يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في هذا من حمل الناس على جمع الكلمة والائتلاف والدليل الصريح الواضح على ذلك ما سمعناه من السيد عبد الحميد وهو يقرأ علينا أسماء وخصائص ووصف الوفود المتعددة المشارب التي اجتمعت في هذا المكان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول فكرة الحاج مالك سي فنحن نشكر هذه الأسرة التيجانية المالكية التيوانية ونجدد الشكر لفخامة رئيس السنغال السيد مكي صال وإلى جميع العاملين على وحدة الكلمة وجمع الصف وإبقاء السنغال على روحه وهويته وشخصيته الفريدة المتميزة المبنية على أصول عظيمة من العقيدة والمذهب والسلوك شاكرا لكم حسن إصغائكم وإتاحة الفرصة لي للكلام في هذا المجمع الحفير المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته nee nim wax won waxe xew ci aduna bi ci ay yëngutu nee kon du hasard yàlla baxé ñu ba indil ñu kilifa go xamné éducateur la yar kat la ku mëna defar nit it la itam di borom xam-xam bu mag yàlla baxé Sénégal mu ñëw ñukoy wax mam Cheikh Al malik sir Sy radiyallahu anhu mu ñëw di liggéey pour dajale nit ñi fa tabarakallahu pour rek dajale len ci ciofel dajale leen ci ñu ànd fexe ba seen kàddu nekk benn nee na loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax bi yàlla mayee Sénégal ñu am kilifa gu mel noonu te nee na lii wane ne Sénégal jàmm am na fi sutura am na fi ànd nañu list bii nga xam ne Cheikh Abdoul Hamid Sy mi ngi ko doon jàng li ci ci ay délégation yoo xam ne fu nekk lañ bàyyi ko ci njabootu l'islam bi ci kër yu mag yi nekk ci biir Sénégal ci àdduna bi yëpp ñoom ñëpp ñu ñëw dajalo ci ben kàddu fa tabarakallahu moy jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne moko mom neena kon mom du tëj kàddu mukk ludul mu yëkkati kàddu yi cant kàddu yi ngeureum jeme ko ci fami wu mam cheikh alhaaji malik yépp sant sëriñ abdul aziz al amin sant président rewmi al alhaaji Macky Sall sante mbollem ñi nga xamne ñi ngi liggey pour julit ñi ànd nek ben yemale sen sàppe ba mu ne rog fexe ba Sénégal jàmm ji fi am identité biñ ko xam biñ ko ñëpp xamé te moy ànd nek ben am roof gu sel am am personnalité bu bo xamné bu ragné ko la ci aduna bi ba ñëpp fonk ko nee na ne ñëpp joxante la ko fexe ba lolu dess fi dara bañ ko yàq te mo ñu tabax réew mi ci ay fondement yu wér ci pas pass bu sel ak rit bi nga xamné bi mo fi dox te moy al madhhabul maliki fexe itam ba conduite bu rafet am fi mi ngi sante kilifa yi ci occasion biñ ko may ba mu a ci mu mi di ñaan yalla mu nekk Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. dégg yooyu ci ki ma leen wax directeur de cabinet.

Macky Sall takal Koko, mon président de l'espoir waye moom itam yaram ak tegginam kilifa diine yep, d'accord nu ci mu sopp la lol dila la voir fu mu toll moom ci bopam and ak membre gouvernement bi yep xamna naa sax si Malick su fekkone du def tay conseil interministériel mën nañu ko fi def ndax président Macky tey amul kenn ku des ci gouvernement bi ñoom ñëpp noo ñëw ak directeur de service yi ak gouverneur yi kon nu jox kàddu gi sunu soppe di kenn ci Seydi Abdou Aziz Al Amine ndax yaram tegginam ak li nu ko dénk El Hadji Daouda Diallo di ministre de l'intérieur nu bàyyi ko ak kàddu gi kon doyen ñu daal di rek di xaar ministre de l'intérieur mi ngi ni bëgg jël cadeau gi di Abdoulaye Daouda Diallo. bu waxee ba paré ñu ñu ñu ñu suivre discours pour man ci dellu ci après merci. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seydi Serigne Abdoul si alahmin yow mi yore kaddu njabootu mam Alaji malik si gep noo ngi lay nuyu. di la surtout le président de la république de sa son excellence Macky Sall. man ak délégation Bima Andal, àndal te ñu tudd sen turu légui. ñoo ngi tegg itam ci sa loxo nuyo ak ziare njiiti réew mi ak suñu boss ci khalif général Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. mi ngeen fi toogal tey noo ngi ziar itam say rek yu baax yi ànd ak yoo ci liggéey bi nekk fii ci jotaay bi te ñu ci Seydi Ababacar si Mansour ak Serigne Maodo Malick si Abdoul Aziz noo ngi nuyu itam mbooloom kilifi diine yu fi teew ak mboolem membre corps diplomatique yi ñu fi lim léegi di nuyu itam mukadam yi njaboot bi taalibe yi ak sinigan yu bàyyi ko ci biir réew mi ak ci bitim réew sëriñ bi ñoo ngi leen di sargal ci bis bi ci bis bu mag bis bi nga xam ne bis gënu ko rëy si xeetu yonante yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo taxit njàngale mu yaatu mi ci daara suñu maam Maodo Malick si di jàngale itam saa yu weer wi teroo ba bisu gàmmu gi yëg si ci njaboot ci mboolem gox gi yépp ci réew mi ba ci bitim réew ëmb na njariñ lu bare lool ci wàllu diine ak ci suñu doxalin àdduna moo tax dayoo ak solo si nga xam ne gàmmu Tiwaawoon am na ko tax na ba tuuru maam Maodo Malick si ak tuuru dëkk bu sell bi muy Tiwaawoon lëkkaloo ba faw ak tuuru gàmmu gi ñëpp xam nañu ne fu ñu tuddee gàmmu rekk xel yëpp dem ci maam Maodo Malick ak Tiwaawoon kon yàlla nañ yàlla fayal suñu maam jooju te fay leen yéen njabootam bi nga xam ne ñooy seetu liggéey bi gannaawam sama ko waaye ñépp gis nañu ko yokkoo ko ba mu yegsi fi tey ginnaaw loolu ñoo ngi rafetlu bu baax itam te mu général ren gii Alaaji Malick rappelé na ko léegi mu di fàttali askan wi solo ak taxawaay bu xam-xam ak liggéey am ci womat réew jëme ko kanam ak soññi ndaw ñi ñu gën fallu ci ñaari mbir yooyu ni bis bi ak président de la république son excellence Macky Sall joxe ndigal yoo xam ne ci jox ko gouvernement bi ngir ñu taxaw ci lépp lu yewanal bis boobu lu ci jàppandiwul nag waxon nalako fi ñun membre gouvernement bi la waye mo si bopam ndigalam mot na sëkk bi président la république nee li nga sak won daw fi si waxtu wi té nga jiitaloon si ci jëm ngir ñepp anda jappalé ko ci liggéey yu mu sumb gis na bu baax njëriñ bi ak njeexitam ba taxna momi tam ci walu bopam fas na lu mu diggé ak ci war ko def ci dëkk bu sell bi ak ci njagoot bi dina ci taxaw incha allah ngir motal lépp moom it président wax na ne itam wàccuwaayu dëkk bi ak dayoo bis bi ci réew mi ak bitim réew war na tax état taxaw def lépp lu mu yellool kon nag moom mu ngi sàkku ñaan président de la république ngir yàlla may ko ak katan bu doy seuk ngir mu motal lepp li nga xamne yenn nako ci dekk bi bu sel bi ak ci bir rew mi yeb nen itam ngeen ñaanat ci bark bis bi bu tedd bi ba jam bi nga xamne mu ngi ci rew mi te tax ba rew yeb naw ko sax fi ba faw lol lepp nak xam nañu ne seen liggéey la liggéey kilifa diine yi la ak seen taxawaay bu rafet yéen ñi fi nekk tey mooy li fi jëmbat jàmm jooju ci kàttanu yàlla ak di ko sukkat waxtu wu ne jàmm nag ñëpp xam nañu ko réew bu ko am seeni boroom war nañu taxaw di ko sàmm parce que fu jàmm amul kenn du fa taal dara kenn it du fa def dara si loolu président nee na mu ngi sakku it ñaan bu baax a baax si bis bu màgg bi ngeen ñaan yàlla musal réew mi si feebar boobu mu di Ebola te yàlla jële ko si gox yi nga xam ne jot na fa dugg ci njeexital suñu kàddu rek sëriñ bi maa ngi dellu man ci sama bopp di la sant si liggéey bi nga xam ne nañu ko ñun ñaar si gamu gi ak sa taxawaay si réew mi it di comité d'organisation bi muy wa Koskas si sen disponibilité ak si sen liguey bu rafet andak membre administration yi nga xamné ne préparé nañu bis bi mo don cadeau ci néew yi mo président de la république yónni woon di leen ziyaare di balu baalu asalaamualeykum wa rahmatullahi jërëjëf kàddu yi rafet na wax ji leer na ndax sa yar ak sa teggin kilifa diine yépp noo la ko seedeel léegi nag noo ngi jox sunu sëriñ sunu yaakaar. di ñaan yàlla mi xam ne dara taw ko yàlla ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér ci darajey Cheikh Sidi Ahmed Tijani darajey maamam Cheikh Sidi Alhaji Malick ak baayam Sidi Boubacar ak Alhaji Mansour ak Alhaji Abdou ak Alhaji Habib moom ci boppam Seydi Abdou Al Amin moo bëgg waxtaan nag ak mbooloo mi yëpp jox leen message bi xam ni magam xaritam sopem serignam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci elmal tom khalif général Tidiane mom la ko wax tay nak du Sénégal rek noy déglu Afrique gi déglu le monde entier gi déglu ñep gi déglu asimalik nu jox la kàddu gi ak di la ñaanal nak pour tollu ak di yeesal sunu kóllëre ak yow bismillah sayyid Abdou Aziz Al Amine kon ñu daldi di déglu rek porte-parole xalif général de Tidiane di sëñ Abdou Aziz Sy Al بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد نبي المصطفى الأمين وعلى آله وأحسابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صاحب المعالي سيدة وزير الداخلية السنغالية عبد الله داود جل والوفد المرافق لمعاليكم من السادة الوزراء والنواب والشيوخ والمسؤولين الممثلين لفخامة رئيس الحاج مكسل صاحب المعالي أخانا وحافظ عهدنا وودنا عبد اللطيف بكدوري والوفد المرافق لمعاليكم من السادة العلماء الممثلين لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ورعاه أصحاب السعادة السفراء المحترمين حضرات السادة ممثلي خلفاء الطرق الصوفية رؤساء الجمعيات الإسلامية في السنغال حضرات السادة الأئمة والعلماء والمقدمين حضرات السادة أعضاء الوفد الإيراني برئاسة ابننا حجة الإسلام والمسلمين سيد عباس هاشمي السادة الأساتذة من البعثة الأزهرية والبعثة الموريتانية فضيلة الإمام سيد موسى علي محمد مجيد رئيس الاتحاد الإسلامي بأمريكا الشمالية فضيلة الإمام محمد سنوسي رئيس الشبكة العالمية الإسلامية فضيلة الإمام أحمد سعيد دويدر إمام مسجد عثمان بن عفان في أمريكا سماحة الشيخ الخليفة العام لأهل بيت رسول الله شيخ عبد المنعم زين حضرات السادة ممثل الأحزاب السياسية في السنغال سيادة مدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي سيادة مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية أيها الإخوة الأفاضل الوفود القادمين من مختلف أنحاء العالم أيها الحضور الكريم من الرؤساء من رؤساء اتحادات الدوائر التجارية في السنغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذه البقعة الميمونة وفي هذا اليوم الميمون للاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بمولده جاء الحق وزهق الباطل وبمولده وجدت الإنسانية ضالتها وبمولده انقطعت سلاسل العبودية لغير الله على ظهر الأرض ومولده به شرف وخير ففي التعظيم إنجاح شجوني أيها الإخوة الكرام إن عالمنا اليوم يعاني من عدة مشاكل بما فيها عدم الأمن والاستقرار والأخلاق والتعايش السلمي وحق السيادة حتى وكأننا اليوم نعيش تحت سيطرة شريعة الغابة والحل لهذه المشكلات كلها كامن في سيرة من نحتفل اليوم بمولده صلى الله عليه وسلم الذي قال له المولى عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فخلقه التربوي عظيم وخلقه الاجتماعي عظيم وخلقه الاقتصادي عظيم وخلقه السلمي عظيم بل إنه عظيم كله فلنتخذ أيها الإخوة الكرام هذا المقام منبرا لنقول للعالم تعالوا إلى ظل الإسلام الوافر للحوار فالإسلام سلام شكلا ومضمونا ويدعو بالسلام إلى دار السلام تلك التيارات التي رفعت السلاح رفعت السلاح باسم الإسلام والإسلام من العنف براء ندعوهم إلى رفع سلاح التقدم والتعمير وراية السلم والصلح فليس الوقت لإساءة سمعة الإسلام وليس الوقت للاقتتال والإرهاب والنهب والسلب ولكن الوقت للتعايش وتعاون والإنتاج يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فالعالم بعد كل ما يعاني بحاجة إلى التعمير ولا إلى التخريب ونقول للسياسيين بأن السياسة ليست شرا كله ولا خيرا كله فهي سلاح ذو حدين وحان الوقت أن نقلل من تقاذف الكلمات وتبادل الاتهامات فكلنا أبناء بلدة واحدة وعلى عاتقنا تقع مسؤولية تعميرها فالمعارضة السياسية ليست كتمان الخير وإفشاء الشر والحكومة كذلك ليست مجرد الوعد والتوعد فليعمل كل منا من أجل النهوض بالسنغال إلى أوج التقدم والازدهار ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم النافع والأمل الجاد فعلى الآباء والأمهات والعاملين في القطاع التربوي صياغة المواطن الصالح الذي يقدر بلده حق قدره ويعي مسؤوليته تجاهه فمجتمعنا اليوم مهدد بالانهيار والانزلاق فالآباء لم يعودوا آباء والأمهات لم يعدن أمهات والمربون لم يعودوا مربين والمعلمون لم يعودوا معلمين فمع هذا كيف نجد في المجتمع مواطنا صالحا فالأنانية جرثومة تقتل تقتل الحيوية في المجتمع وقد أصبح أكثرنا اليوم أنانيين يقدمون المصالح الخاصة على المصالح العامة ولا يتصرفون من أجل الجماعة والجماعة رحمة فعلينا جميعا تحمل الأمانة كاملة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونقول لأبنائنا السنغاليين العاملين بالخارج بأن عليهم أن يساهموا في بناء وتعمير السنغال وأن لا ينسوا أسرهم وبلدهم فالعمل خارج بلد مغامرة شريفة وعلى المغترب أن يكون سفيرا لبلده سلوكا وتصرفا ويجب أن ينفع بلده مما يعمل وندعو المواطنين إلى تعمير الأرض بالزراعة فالزراعة هي أم الحرف فالهجرة من الأرياف إلى المدن ظاهرة ينبغي أن تكافح أن تكافح بتوفير الخدمات اللازمة ذلك لأن العلم والعمل مستطيع نستطيع أن نكافح جميع المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد قيل من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم فمن مشى بقدم العلم النافع والعمل الخالص نجا في الدنيا والآخرة هذا ولا يسعنا في ختام الكلمة إلى أن نجدد عظيم الشكر والامتنان لفخامة رئيس ماكي ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشكر موصول كذلك لأشقائنا الكرام من الولايات المتحدة الأمريكية ولجمع خلفاء الطرق الصوفية وأصحاب السعادة السفراء والوفود القادمة كافة من مختلف الأنحاء فهنيئا لكم أيها الإخوة بمولد النور وهنيئا لكم بحضوركم في هذه البقعة المالكية المباركة أهلا وسهلا ومرحبا باسم الخليفة العام سيدي شحمد التجاني الذي نتصرف تحت إمرته الحكيمة وإشارته الواعية وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب المعالي الوزراء أصحاب سعادة السفراء الإخوة الأكارم لا نختم كلمتنا دون توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي وحثه على تعزيز جهوده من أجل تحقيق السلام وترسيخ تعايش بين الأمم بالعدل والتضامن ونصرح من جديد بأن حق السيادة حق طبيعي يعترف به القانون الدولي ويلح على احترامه ولذا ندعوه إلى اتخاذ إجراءات لازمة وناجعة لاستعادة حق الشعب الفلسطيني وأن ينظر بعين الرحمة هؤلاء المدنيين الذين يعانون من العنف ويقاسون آلام السلب في كل مكان ونحث كذلك على السعي لاسترجاع السلام في كل بقعة يهدد فيها كيان الدول واستقرار المجتمعات وأمنها سواء في شبه إقليم في إقليمنا أو في قارتنا أو في منطقة أخرى على سطح البساد كذلك إننا نحيي ليلة من بظهوره تحولت الغابة إلى جنة فتلاقت الوحوش على تسامح وتعاطف وتعانق بسبب مولد عين الرحمة والعدل سيدنا محمد الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم آه، مكي جلدي في fi ak mbokki talibe yi ak ganni ak kilifa yi ñu commencé ko ci ki nga xam ni moo fi teewal président de la république di suñu rak la suñu doom sax di suñu xarit ñu naw ko lool ci teey ak yar di Abdoulaye Daouda Diallo ak délégation bi mu àndal ci ay ministre ak ay député ay sénateur ak ay responsable yu kawe ñu ñëw ci bis bu tedd bi pour teewal fi Alxaaji Macky Sall président de la République du Sénégal ngi leen di nuyu bu baax di leen wax ni bis bi bis bu rëy la bés bu rafet la bés bu tedd la ndax ki tax ñu sàkk ñépp ci bés bii la juddu moo tax mu nekk bis bu rëy nekk bis bu rafet ma nekk bis bu tedd ñu nuyu ko bu baax mag ñi mu àndal ñëpp wax leen ni dal leen jàmm fii ci xadra Seydil Hadji Malick ñu àndandoo ñun ñëpp ci turu ki nga xam ni tey mooy njiitu xadra bi di xalifatul am li tariqati tijaniya Cheikh Ahmed Tidiane si bi nga xam ni mi ngi am ngàntal nekk ci xalwaam te génnagul ñu yabal nu ni nanu leen teeru sànnenteeg yéen kàddu yu gàtt yi gannaaw ba nga xamee ni itam ngi nuyu suñu mbokk suñu wëllëre di suñu soppe Abdou Abdoul Latif Bagdouri ak délégation bi mu àndal jóge Maroc ci Sa Majesté Mohammed VI yal na ko yàlla sàmm te wattu ko nga xam ni ñu ngi ni ñi nga xam ne tey ñoo fi toogal seeni réew ci ay ambassadeur ak ñi nga xam ni ba tey ñoo fi toogal seeni réew ci ay secrétaire ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Ahmed Tidiane moomu ma tudd ñu ngi nuyu ñi nga xam ni itam ñoo fi toogal ak turuq ak suufiya ñoo fi toogal tarixa yi ñu ràññee ci Serigne Bara Abdoul Ahad bi nga xam ni suñu mbokk mu baax ma ci Touba moo ko yebal pour mu teewal ko fi ak ñi mu àndal ñu mën ca tudd sëriñ Mbuub ñi ngi nuyu itam mbooleem mbooloo diine yi nga xam ne dañ fi teew moo xam aljamiyaatul islaamiya la walla ay mbooloo diine yeneen walla ay ONG te yëpp di jëm ci lislaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mbooleem ilimaan yi mbooleem boroom xam-xam yi mbooleem muqaddam yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, di sant nag o yóbbante ministère de l'intérieur wax dëgg yàlla xew wi lépp lu ci wara def war ko cee taxawe def na ko taxawe na ko amul benn wet gu manqué xam naa la daloon mbërum waalo waalo ma moom mën na ko wax wax dañ dafa ñi ci ñi ci làmb ji yëpp mu def leen taxaw nag di bakku naan kama laal kama laal waaye moom mën na wax loolu dara su ci li ñu ko santoon lépp li ko laajoon joxe na ko ba joxe sax lu ëpp lañu ko laajoon loolu nag su amee il faut ñu sant ko ndax nun la sëriñ bi bàyyee ak kàddoom ñuy dem di wax ak moom waaye lépp def ko tegoon ci loxo kii ci sama wet muy ministère de l'intérieur mu doxal ko lépp lépp am na sax yu ñu ko bëggoon wàcce waaye daf ni déedéet damay ñëw teew du ma yónni kenn ndax mbir mi sama mbir la ñu sant ko bu baax a baax sant ko moom mi sant itam suñu collaborateur yi mu ñu boole loon ci biir gouvernement bi ñuy jëfënte ak ñun ñu sant itam ki nga xam ne mooy buuru Maroc di Mohammed siis yal ko yàlla wattu te sàmm ko at mu nekk wala sa xew mu nekk dana yebal benn ministre mu teew fi walla ku kawe ci suñu mbokk marocain yi ñëw teew bërki démb rek lañ fiy jóge ci màggalu Tuuba ca gannaaw ëllëg sa ñu si ci journée culturelle yi ñu doon defal Cheikh na Ahmed Tidiane ca Dakar ñu ngi sant itam suñu doomu ndey yi nga xam ni ñu ngi jógee amerig di sant mboolem tariqa yëpp suñu mbokk mu baax mi dend ak ñun di suñu doomu baay di suñu mag di maam bu sëriñ bi mi ngi koy delloo ay nuyoo aki cant suñu kër baay alaaji ëmën jegéen ca Thiès sëriñ bi mu ngi koy delloo nuyoo aki cant mi ngi sant suñu maam kër Abdou Cissé ca Pire te sëriñ Moustapha Cissé nekk xalifa bi euh, ñu ngi sant itam سرين شرطي جان سك بو تيانبا بي ني ايلك لا جامو نيونا في نوختان لو باري لو ياغ موم سما خريط لا سما بروفيسور لا ندا دا فام بن كونفرنس بو ني واجال سي القران pour suñu mam yi ni ñi fexé won ba xereñi di ko jàngale ci seen façon te jànguñu naxwu jànguñu grammaire jànguñu maxaarijul xuruuf jànguñu tajwid xamuñu benn riwaaya waaye dëgg nañ ci loolu ba bind kaamil ba mu mat te benn fot amu ci méthode yi ñu doon jëfandikoo nag ba def loolu loolu dañ koy waajal benn conférence moom Serigne ba nag ku ci ngéeju la lool sax mën nañu wax fii Sénégal moo Kang Diagne bi ci Ngunjaan ñoo ci gën a ngéeju man ñoo ci sama professeur ñu ngi ci toog di ci liggéey di ci jël ay notes di ko waxtaane te bés bu ñu koy def bu international lay doon woo ñu ci monde bi yëpp ñu xamal leen compétence suñu maam yi fi ñu jaar ba not alquran not diine fii ci senegal moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax moom Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu ngi nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Madina Gounass mi ngi nuyu mbokam mu bax ba ca di rakam di Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak mboolem famille Alhaji abdullah Niass ngi nuyu famille Alhaji Abdou euh Papa Souleymane Papa Souleymane kan jiti ko mi ngi nuyu euh, ba ci kër alxaaji ahmad dem ci sookoon ñoo ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci bés bi di leen ndokkeel ci weer wi di leen ndokkeel ci at mi sëriñ baa ngi ndokkeel ak di nuyu nag ñi nga xam ni ñooy ñoo moom fii moo tax mu mujj leen te moo di famille Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu eh, sëñ Bachirou Tall suñu mag suñu xarit nekk ca bopp yable ne délégation bu am solo bërki biig ci bi ñuy tëj burdu bi te itam mu yónneeti délégation bu am solo ñu ñëw teew fii teewaa fi njabootu Cheikh Omar Foutiyou xam ngeen ni kër gi Cheikh Omar ko moom ci biir ak ci biti Cheikh El Hadji Malick Omar moo ko jox li mu am moo ko désigné def ko xalifaam te juddoogul dafa dafa alfa himma yor a demee ziyaare ji ko ziyaaram bu mujj la ko wax ni ko ki may mottalil sama liggéey ci Afrique de l'Ouest ci sa néeg lay génne si néeg lay génne jox ko tegtal yaag yëpp bind la muy bind jox ko ni ko su ñëwee moo ko moom defal ko lijaasa te Maodo juddoogul moo tax mu daan wax moom Cheikh El Hadj ñett ci benn ngoon laa ko am سمجر الطريق بي اك سما خال الشيخ اك نديغال دوخال ني نيت يوي تي بن غون لاكو امادو من كيروك بوكو مام الفا ماي ورد كيروك لوكو دالل نوفيو كيروك لوكو جوخ لياز بيكو شيخ عمر بندلون pour me voir à l'école de ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñu ngi fi toog euh, di nuyu suñu màkku bati Abdoulaye Thiaw Laay toogal fii sëñ Abdoulaye sëñ Issa Laay toogal fi sëñ Abdoulaye Thiaw Laay bàyyam moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem famille diine yi fi teew ci bokk ci réew mi maa ngi leen di tooñ bërki bii ma ne ah ñun suñ tariqa bi kat ci côté yëpp ay Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Seck sax laa ko doon wax bi mu ñëwee bay dem ma ne ko ah Cheikh Ahmed Tidiane Seck mooy xalifa Thiénaba Cheikh Ahmed Tidiane ba mooy xalifa Madina Gounass Cheikh Ahmed mooy xalifa Niassène mais Cheikh mooy xalifa kër Seydil Hadji Malick <laughs> xam nga yàlla nag moo mën tollale su ko defee ñoom ñëpp ñu sant leen sant suñu mbokki ambassadeurs yi sant mbooleem ñi fi teew ci bokk ci réew mi ñu war leen delloo cant ndax itam damay wax ni ñett ku ko xeebal sa mbokk yaa ko tooñ ku xeebal sa mbokk bésam yaa ku xeebal sa mbokk soxlaam yaa ko tooñ ku xeebal sa mbokk sëriñam yaa ko tooñ te bés bii bés bu réy la ci ñun bés bu réyoon la ci Seydil Haaji Malick ndax mas na ci def benn déclaration ci jumaa ji ñëpp toog mu am ñu mànke ci taalibe yi mu ni ah su ma sañoon nag ñu teew ndax mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci mennum at di ko wax ci génn guddi cim at bu sañoon ku mu jaboote rek daa ko teewe su ko defee kon muy bis bu rëy ci lislaam di bés bu rëy ci jullit yi yàlla baaxe ko bi mu ñëwee fekk na ñu daan def gàmm waaye la ci yàlla amoon ci cër tuuti la ndegam am na ko ca mu ñëw soppi ko solol ko mbubbu lislaam woo ci jullit yépp mu nekk guddi daje joxante xalaat ti ñu ñuy def ba lislaam wesaaroo ci àdduna bi su weer wi teroo muy def burdu ngir sédd Muhammadul Busri cëram bi mu am ci téeram boobu fukki fan noppalu benn guddi fukki fan yaak ñaar guddi fukki fan yaak ñaar mu ànd ak njabootam yépp teew ca jumaa ja gàmmul leen gàmm goo xam ni gàmmu jàngal la gàmmu yar la gàmmu orientation la gàmmu saxal leen ci li ñu nekk pour won leen ni am ngeen dëgg ba noppi te ñaari dëgg mënul am yàlla amul ñaari dëgg benn dëgg rek la am mu ñu génn dëggu googe nag maa nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na maa gën yaatu tànk wala mu gën ma gudd tànk waaye sama tànk du wàcc ci tànkam te loolu doxal ba ni mu fi jóge ñi fi bàyyi woon itam loolu la doxal ba ni ñu fi jóge su ko defee kon bés bu rëy la ci ñun ñu bëgg nag. waxtaan tuuti ci jamono parce que jamono xew-xew yi day bari te bu fekkee ni occasion boo am wàcc ko mu paase te doo ca wax mu yàggee nga am tuuma su ko defee ñu ngi ñaax rekk njaboot gi ñoom ñëpp ñu jéem a takku ñu nekk ci réew meek ñi nekk biti réew ak ñëpp lañ ci boole yemale ñu nekk ci réew mi nañu xam ni nit ku nekk am na lu ko war ci réewam am na lu ko war ci réewam mu war di ko taxawee loolee nag ba nekkee ci biti réew it moo la war rek damay wax ni ku génn Sénégal soppiku boo génnul woon it soppiku waaye gis nañu ay sénégalais yoo xam ni soo leen fekkee ci biti réew soxol dafay sedd ndax fàttewuñu dara ci li nga xam ne moo leen war ci seen diggante ak seen boroom seen diggante ak seen réew ñuy sant nag yàlla mi nga xam ni moo leen dajalewaat tey fii ci pàkk bu tedd bi di Tiwaawan Seydi Hadji Malick moo ko soppi def ko muy pàkku yàlla ñu daje fi di sellal ki nga xam ni ci juddoom la dëgg feeñe neen réer ci juddoom ci la doomu aadama amee li ko réeroon te mooy njub gu sax ci juddoom ci la buumu jaamu kudul yàlla ci la dagge moo tax Cheikh El Hadj ni wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'dhim injaahu suyuni nee na juddoom ca la Konak nga ak yiw amee kon nag màggal ko nang ko war a màggale la aajo di fajoo parce que am nañu nii waaw ah, gi a. Ah, bida la mais bida la waaye bida bu rafet la bida bu ñaaw dafa am ak bida bu rafet bida bu ñu sib bidaa boo xam ni la bida bo xamni farata la lo xamni ni bu farata amul won du am bu farata amé mu am koku man nañ ko nangu bu baakha baax doomu aadama mel non rek loo ko jëkk te muy lu baax mu mu mu mu mu sikkal ko mu ne nag màggal guddi gi fajuk ajo mën na ci ame taxu na dëgg fa fi taadimi injaaxu si yóne ñu di wax nag nii tey adduna bi dafa bari ay problème ba ca jëkk moo di sécurité amatul stabilité amatul jikko yaa ngi réer dëkk ci jàmm ñuy wax ko habitation pacifique amatul kenn amatul tur durwaay ca la nga moom ba mi ngi mel ne sax tey dañuy dund étape ba nga xam ni lislaam ñëwagul ku mel ne sayiduna muhammad feeñul nit ñi di lekkante di reyante dafa mel na boobu étape lañuy ñuy dund léegi te nee na problème yi am yëpp ci àdduna bi noo solution bu ñu demee ci biographie yonent bi rek fekk ko ci yonent bi nga xam ni moom la ñuy feete tey juddoom euh, li mu tëral ak li mu def boo bëggee solution euh, problème yi yi am ci àdduna yi am yëpp boo demee daa ci fekk solution su ko defee nag kon ñu war a dellu seetaat suñu bopp ndax kat la bukki waxoon rek sama biir day daw ñu ne ko lu koy daw mu ñu sump ñu ne ko lu koy faj mu ñu sump il faut ñu delluwaat seetaat suñu bopp ñu xam ni euh, ki nga xam ni moom lañuy ñuy feetu dem nañ ci wut lu baax ak wut tedd nga ba yàlla reconnaître ko ni ni ma ko bëggee woon defe nga ko noonu wa innaka la ala xuluqin azim su ko defee kon nag suñu bëggee delluwaat ci tedd ngam boobu dañuy delluwaat ci melokaanam rek ndax la sëñ Babacar Si waxoon rek keroog ba alxaaji rawaan ngom nelawee moo ko jullee waaye ba mu ko tiimee dafa ni kii daal jaam bu yàlla gërëm la jaam bu yàlla gërëm nag loolu ci moom rek bokk ci ngërëm la mu ku bëgg am li mu am nag da ngay def ni mu defoon rek loolu di wax bu ama am solo su ko defee kon nag ñu war seetaat suñu bopp seetaat li xew ci àdduna bi ñun la cay suñu wàll ñu jël ko liñ ci moomul ñu bàyyi ko nee na kenn ku nekk tey yaa war a nekk sa ambassadeuru réew ci sa comportement ci sa melokaan nga war a jëriñ sa réew ca la ngay la ngay def mu ni moo tax tey ñu ngi woo citoyen bi nga xam ni mbay mooy métier mu dellu bay suuf si ne te mbaykat mooy ndayu métier yépp parce que Adam mi jur ñépp bi ko yàlla bindee wàcce ko ci kaw suuf moo ko xawaa ñu taxaw ci benn taatu garab seen tabia ba ñu nekkoon ak bi ñu nekk léegi du benn nature ba ñu doon dund ca ajjana ja ñu nekkoon ñii nee nañu ajjana la ñii ni jardin la parce que li góor gi daan wax rek ni yonent bi sallallahu alayhi wa lu dul Fatima Amina mooy yaayam Abdullahi mooy baayam loolu rek la boroom xam-xam yi werantewul nee na waaye lu dul yooyu ñaar rek werante nañ ci ba mu leen wàcce ñu raflewu ci taxaw ci benn suufu garabu gis nit raflewu daldi di ñaaw xaat ci ñoom xamuñu woon tàngaay jaw ji tàng Adama mënu ko supporter muy jooy muy jooy xawaa moo ko doon dalal malgré muy jigéen jigéen yàgg na dalal góor yàlla dafa daldi di yebal benn malaaka rek xamal ko ni ñuy baye jox ko koto jiwu coton mu ji ko fi saa mu ñor fi saa mu xamal xawaa ni mu koy ëccee ba mu nekk ay fiil xawaa dal di koy ëcc fi saa mu xamal aadama ni ñu koy ràbbe mu dal di ko ràbb mooy premier métier bi mu jëkk a mbay am ci wëteen wëteen ba mu daal ko ràbb ba ko ràbbee mu nekk malaan mu sàng ci awraam moo ko xawaa kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu dellu ci mbay mi surtout nitu kaw yi nekk Dakar di taxawaalu te defoo fa dara kër goo mu fees dell ku nekk naa maa ngi wut visa bu ma génne réew mi waaw du nga dellu bay kay ba ba nga am visa ku nekk naan damay wut place bind naa mais dellul si réew nga bay ba ba nga am yooyu te sëñ Babacar Si radiyallahu anhu moo doon suñu njiit bar gannaaw Seydi Hadj Malick dafa génn ñu laaj ko ni ko góor gi lan mooy métier taalibe ma daal di taxaw mu ni métier taalibe ñu ni ko waaw mu ni mbay ak commerce mu ni waaye bu ci nekk am na lu mu laaj mu ni mbay na am jiwu nanga am suuf am jiwu am matériel boo jiyee mu ni te boo sama tool bi na fekk muy dëgg nee na lépp abu suuf lépp jiwu lépp matériel lépp engrais lépp dund naan sama tool waxuloo dëgg nee na négal ba ñooñe jël seen wàll ñi nga leb yooyu yëpp ba xam dara dana ca des wala dara du ca des na am loo ci moom mu ni commerce yi itam dafa laaj nga am tuuti capital leb nag boole ca waaye bu leb rek commencé commerce ne boo lebee commencé commerce ci ngay lekk day daal di jeex da ngay am capital door a commencé nee te boo nee bismillah bañ ni alhamdulillah mu ni commerce am na ñetti bukki bu ca commerce bu muccee yàlla mën na ci def sutura mu ni bukki bu jëkk bi mooy banque bi ak fournisseur bi nee na ñaar ñëpp seen pexe mooy nangu li nga am booleeg lañu ñu am soo muusul ñu def la ko nee na bukki ñaareel bi mooy clientèle bi bu ñëpp lebee nga lebal leen ñëpp du ñu fay si mais bukki ñetteel bi mooy sa bopp bu fekkee sa frais moo ëpp sa bénéfice da ngay lekk sa capital muy kon voilà yooyu ñaar mooy seen métier yéen taalibe yi na ngeen ko xame noonu su ko defee kon ñu xam ni mbay mooy suñu métier ñun waaw ñi muy seen métier nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu jotee rek ñu def ko nañ ko war a defe su ko defee kon ah mu nee na mi ngi dénkaane Serigne Cheikh mooy wax de man waxuma noot daal la may jox ni ma boo demee jàngal ko nit ñi mu ni ñi nga xam ni itam ñoo yilif doomu aadama yi te état nekk seen loxo nee nañu leen dimbale wutal leen ba ñu am fu ñu mën a nekk ñu am liggéey mu ni liggéey nag du lu ñuy xëy rek wut ko ci benn bés am ko nañu ko wut yow itam del wut ku jëkk a réussir rek baax na nee na mi ngi ñaan jëkkër yi ñu yërëm seeni jabar xam ne jigéen dafa fragile lu ko jaaxal ak lu ko gaañ dafa yomb mu ni mi ngi ñaan jigéen ñi ñu wormaal seeni jëkkër jàng nañuy sàmme néegu sëy parce que néegu sëy dafa dafa xaw jafe bu jëkk jigéen ñi dañ ko daan jàngal seeni doom ah bés boo amee jëkkër kët boo demee sa néegu jëkkër ni nga fa war a tooge léegi jigéen mooy ànd ak doomam di exploité góor gi suba gisee du laaj ku ko jur ban fami la bokk dafa naan fu muy liggéeyee fu muy liggéeyee rek déedéet da nga naan ci ban famille la bokk fu ñu ko yaree waaye fu muy liggéeyee rek ndax am na xaalis ak amul xaalis sëy bi yëpp yaa ko teg ci kaw matériel booba sëy ñaare ah niw ñu du dox de waaye la ca yàqu mooy ëpp la ca defaru mu ñu kon nag mi ngi ñaan jigéen ñi ñu seetaat seen néegi sëy noonu loolu moo tax chiaaru gàmmu gi ren ñu def ko al ilmu wal amal al ilmu wal amal li taxqiqil amal xam-xam ak jëfe xam-xam mooy tax nga am la nga bëgg xam-xam ak jëfe xam-xam mooy tax nga am la nga bëgg mu ni xale yi mi ngi leen di ñaan ñu continuer seen njàng mu ni jàng nag yàggul ñàkk jàng moo yàgg nee na bokk sa kaye ak say livre fréquenter établissement scolaire bu la soob nee na yàggul ñàkk ko def moo yàgg nee na te loolu mi ngi ko jële woon ci baayam Sëñ Babacar Si nee bi mu commencé jàng xam-xam ci moom daf ko daan ñaax waaye bokk na ci lim ko daan ñaaxee di ko wax ni ko Cheikh jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg mu ni loolu nag mu ngi koy wax jàngkat yi ci réew mi xale yi jàng ñu xam ni jàng yàggul te nee jàng loo ko booleel jàng dem bàyyi la ak foofu nous dit que les responsables nous sommes tous égoïsme. Nous avons dit intérêt général et intérêt personnel. Nous avons dit que les responsabilités nous avons dit ñu di ko soppi ngir mbooloo mi te bañ ko soppi ngir seen bopp liggéey pour mbooloo mi bañ a liggéeyal sa bopp nee na ndax boo liggéeyal sa bopp bàyyi mbooloo mi égoïste li lay mën a tudde nee na kenn ku nekk ci nun na jéem a yenu bi ko yàlla yen nee na bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moo di yeneenti xeet wi wax na ni kullukum raaya wa kullukum masulun an raayati yéen ñëpp ay sàmm ngeen vous êtes des responsables nee te responsable bu nekk su ëllëgee balaa jéggi di dugg aljana gi ñuy xaar te nekk naan aljana aljana danañ ko laaj lii nga responsable oon fan nga ko jaaree léeg nan nga ko toppatoo nee na yéen Sénégal yi ñu nekk ci biti réew mi ñu nekk ci biir réew mi nangeen ngeen participer ci tabax bi ñuy tabax réew mi ak tabax bi ñuy tabax Sénégal ngeen bañ waaye ngeen bañ faté seen responsabilité ci sen njaboot yi mo xam njaboot yi nek ci biir réew mi la wala njaboot yi nek ci biti réew nee wacc fi sa réew dem ci beneen réew aventure la waaye aventure bu tedd la bu fekkee la nga fa am moo gën li nga am ci sa réew waaye boo fa nekkee itam na nga góorlu ba ñu nawe ci yow sa réew te nga jariñ sa réew ca la nga fay jële su ko defee nag kon loolu la yabe njaboot gi pour ñu delluwaat seet suñu bopp delluwaat xalaat nan lañu wara war a doxale réew ba lépp yéwén xale yi ci seen njàng ñu def tout pour tegaal leen ci yoonu njàng nee ndax yongu njàng dafa xaw a jafe il faut ñu wax ñu teg la ci nee te wax nañu boo bëggee àdduna ju jag na nga am xam-xam soo bëggee alaaxira ju jag na nga am xam soo bëggee àdduna ju jàkk ak àllaaxira ju jàkk na am xam-xam nee te koo xam ni yëkkati nga sa tànk dox ak sa ndëggu jëm ci wuti xam-xam buy jëriñ ak jëf bu sell nee sa àdduna dana jag sa alaxira jag loolu moom la yóbbante mbokk yi mu ni te diine ji ñu bàyyi ko xel mu ni suñu kilifa daana dénkaane juróomi yëf nee juróomi yëf yooyu li ñu bëgg ci àdduna ak alaxira nee ëmb na ko daf daan wax seen diine faram fànc ko ba mu teer moom sëñ Babacar Si góor ngeen góorgóorlu ci seen diine na ngeen góorgóorlu ci seen tariqa yéen ko jàppal seen bopp na ngeen góorgóorlu ci seen métier na ngeen góorlu ci seeni daayira na ngeen góorlu di ñëw Tiwaawan mu ni yooyu juróom soo ko seetee lam ca wax moo ëmb li nuy doxal lépp diine ji ak la mu laaj xam-xam ba mu laaj xam na ngay def ba jaamu yàlla la jëkk ci jaamu yàlla mooy seet laab laab nan la nga xam ko ndax amul benn jaamu boo mën a def tëddu laab moo ko laal nga xam la ko bu baax ba mu wér la ni nii la jéem ci dox ay tànk dafa am benn bés am mbokk mu ni dafa gént benn kilifa ci réew mi kilifa diine yoo am ni jóge na fi ni ko néew yi ñëw daal fan yi li ñuy tawat moo di sang mi leen di sang baaxul mu ni ma nag lu ciy pexe ma ne ah, mën na am parce que Dakar dafa yaatu te ñi xam bari wuñu ma ne ko daa gis sax jigéen ma ne ko surtout ci niveau jigéen ñi ma ko daa gis jigéen ji faatu tey ñu mënoon ko yóbbu ci bis bi mais ci ëllëg sa lañ koy yóbbu ndax du am ku wér ku ko sang mun ma nuñ ko nu ñuy def nag ba loolu ñu faj ko ma ne ko du ngay ciblé par cercle par quartier ma ne ko quartier bu mel na Guédiawaye wala quartier bu mel na Grand Yoff nga ciblé fa ba ñaar fukki jàkka jàkk bu ne nga laaj imam ba mu jox la sangkat bu góor ak sangkat bu jigéen nga defal leen formation bi dix jours ma ne ku ñuy jàngal nii la sa sange néew fukki fan daa ko man ma ne ko soo ko defee bu fukki fan yi matee nga jéem leen naxe benn diplôme ndax mu sabarloo ñeneen ma ni ko du ñàkk am ñu fay yendu nga war leen toggal añ ma dindi million de francs jox ko ñu ko nga gàrde ko pour ñooñu bu séminaire boobu jeexee nga jëlaat beneen mais bi mu ko defee gis nañ ci njëriñ lu mag dem nañ ci ba léegi Dakar quartier yu bari mat na legi mi ngi talal loxom ba ciess ak ba Ndar sax ba Kawlax ko defé mbiru diine nak non lañ ko tëb parce que diine ci kaw wax rek ni soow diine ci nang mi ngi yàqu ah ah wa yow seet bop setal ndax matal nga yow sa diine defal sa bop bal nga defal kenen ngay defal sa bop bu sa yep mak mu ni loolu moo taxoon euh, sa tariqa itam noonu yaa ko jël tariqa Cheikh Ahmed Tijaan yi ci ñun Tijaan yi dafa am ay werd am ay charte am niñ koy doxale yaa ko jël sa bopp kenn propagande la kenn xëccu la ci yaa toog ba xam ni war nga ko jël neex na la lañ cey def wóolu nga ko nga ñëw seet muqaddam bu la neex nga ni ko may ma tariqa bi mu may la ko ah waaw nga war di ko jëfe nag su la ko mayee ba nag jëfewoo ko lu war lu tu ja ñaan ko rek tuddoo tijaan la déedéet da koy ñaan di ko jëfe di weer di weer di هي طريقة بخمني طريقة الشكر والرضا له موتخ من وين سين دينه فرم فانتكو بومون جيخ من لين سين طريقة فرم فانت طريقة بومون جيخ لي وارك لي وارول اك طريقة الشيخ موي لان اك كان موي الشيخ اك لوتخ مو ام لي مو ام اك فان لا جار با امكو لول تيجان بو نيوار غوكو خم tijaan bi ne war nga ko xam mu ni lu ci top seeni métier ngeen fexe ba kenn ku ne am métier bu muy exercer di ci am dund ndax nee na gàcce paaseetul fooy jëli li ngay dundee ngay nakk-nakkal nit ku ne la muy dundee war na xam fa mu koy jëlee mu ni kon nag ñu dundalaat métier yi bay na dem bay ki commerce na dem def commerce te moytu riba bu bari ca biir commerce ba xormaal liggéey di ko def ndax yàlla ba mu yabelee aadama pour mu ñëw ko suuf daf ko boole junni métier di ko soo demee sa sët yi ku ci bañ a toog bañ a def dara na exercer ci métier yi benn walla mu toskare ndax bu boobaa la fay des mooy jël diine di ko jaay di dunde te diine nag marchandise yàlla la yàlla ne suma marchandise kenn du ko jaay di dunde te mooy nax nit ñi ci diine di ko dunde te fekk nekkoo ci dara mu ne loolu ñu bàyyi ci xel kenn ku ne sa métier ma nga amoon nga dundalaat ko ndax man mën ci am looy dunde te doo am gàcce mu ni sa daayira mu ni daayira ci moom ni mu ko waxee mouvement de solidarité la ba mu koy lancé 1927 dafa bëggoon mu nekk mouvement boo xam ne da ngeen ci jaar dimbalante am benn kees kees boo xam ni euh, la cay nekk duñ ko jox benn sëriñ addiye parce que moomu ko kees ga la ca nekk daayira bee ko moom ku ci am ordonnance te amoo loo ko jëndee ñu yërëm la jox la ci loo jënd sa ordonnance ku ci am euh, tukki bu sori bu farata ñu tàggale sa mbokk par exemple fu sori te amoo loo ci bokk loo paase te yaa ngi bokk ci dayre bi ñu dindi ci jox la nga dem def sa tukki ku ci am ngénte te amoo lu jëndi xar ñu dindi ci kees gi dimbale la nga dem jënd xar ngénte sa doom bu ñu samedi wala dimanche weer wi dee na daayira bi daje waxtaan seen waxtaan dañuy seet ben arabisant mu defal leen benn démonstration ci ci laab nan la wax leen laab ni ko lislaam tërale ak lu muy jëriñ ba mu yegg wax leen ko njàpp wuduan wa xuslan wa tayammuman wa stibraan su beneen yoonee mu indi leen axkaamul ibadat loolu la daayira bi doon jëriñ di la jàng parce que da nga gis mag mu ni gëng-gëngaaral te xamu ko te daf koy rus laaj waaye suñ ko waxtaanee ci daayira bi mu xam ko muy suturaam kenn du ko xamal dara c'est ça loolu mooy la daayira doon jëriñ dafa bëggoon mu nekk mouvement de solidarité entre les les musulmans entre les talibés yi ci bokk gis naa benn américain bu ci bind brochure bu am solo brochure bu am solo mu ne loolu la daayira doon jëriñ bu koor jotee mu waxtaana leen njëriñu koor li ci nekk njëriñ ci ruux njëriñ ci yaram su beneen feet ñëwee mu wax leen tabaski lan moo ko waraloon sacrifice bi ñuy dem ban fan la yonent yàlla Ibrahima jaar ba yonent bi jël ko def ko sunnaam ci biir diineem ñu di ko jëfandikoo noonu noonu loolu la daayira doon jëriñ mais nit yi ñoo ko manipuler mujj ko def mouvement de d'intérêt mouvement mu ni kon ba noppi daf leen di ngeen nekk benn te lislaam dafa soxla njabootam nekk benn mu ni ngeen góorgóorlu nekk benn bàyyi euh, yu amul solo di leen teqale di leen teqale mu ni bi ci des itam ngeen di ñëw Tiwaawan engagement la parce que jël tariqa engagement la engagement boobu nag ku ko jël war nga bàyyi xel fa nga ko jële soo ñëwee li xew ñu wax la ko nga dem ndax nee na kenn du jëlee renseignement ci mbedd renseignement soo ko bëggee da ngay dem fa nga yaakaar ni lu xew nee na taalibe du fore renseignement ci mbedd na koy fore fa mu yaakaar ca dàtt ba lu xew ñu wax la ko nga dem su ko defee kon ñiy wax lu amul ak di teqali nit ñi ak di sos dootuñu am bunt dootuñu am bunt su ko defee kon fa tabarakallahu ah mi ngi guddi mais itam bii bés la amoon pour sànni lii ci noppi ñëpp ku ñëwoon rek euh, bokk ci gannaaw loolu mu ni itam mu ni du motali wax ji jubali wul wote ci almujtama dawli la societe internationale aduna bi ñi yilif ak ñi amé mbiri nit ñi ak fuñu mëna nek ñi ci julit ak ñi dul julit mu ni ñoom ñëpp mi ngi leen di woo mi ngi leen di ñaax ñu dolli seen farlu ba at ba aj jàmm mën a am ci àdduna bi dëkkandoo ci jàmm mën a am ki nga bokk bokkalul diine waaw mais yéen bokk réew mu am këram nga am kër man ngeen dëkk dëkk bu rafet te lu du ñaaw ku ne continuer ca la nga gëm muy cohabitation pacifique cohabitation pacifique nee na mi ngi leen di ñaan ñoom communauté internationale ñu jéem saxal ko te def ko nag ci maandute ak solidarité nee mi ngi dellu di baamu ñu bàyyi kenn ku ne la moom nga jël ko nee na kenn du nangu nit la mu nangul nit la mu moom nee te loolu loi internationale reconnaître na ko te mi ngi ñaaxi toujours pour ñu respecter ko nee na mi ngi leen di woo pour ñu jël ay mesures yu gën a dëgër gën a am solo pour delloo ci àqu peuple palestinien depuis mille neuf cent ngi nangu seen suuf nangu seen dëkk di leen fitnaal di leen rey amatuñ lu ñu moom nu leen neex lañ leen def mu ni mi ngi ñaan nag la communauté internationale ñu jëlaat mesure yu gën sévère pour a shaab a Palestine yi ñu ñu xettali leen génne leen ci ni ñuy dunde ak civil ya fa nekk te defuñu dara tooñuñu kenn ñooñu ñu protéger leen nee ndax ñi ngi dund ci violence nee ak nangu seeni alal nangu seeni suuf ci place yëpp nee mi ngi leen di ñaax itam ñu def tout pour delloo si jàmm fépp foo ay am ñu delloo ci fa jàmm nee na ndax ay ay yu bari yi su yàggee mooy indi ay wu màgg te ay wu màgg nag su amee kenn du ca mucc mu ni kon nag nañu def tout pour que ñoom ñooñu nga xam ne ñoo amee àdduna bi du ko wëndeel na mu leen neexe ñu daje waxtaan daje waxtaan nee ba mën a delloo ci xel mu dal ci doomu aadama yi ndax doomu aadama bu mu nekk foo nekk tey te xàmmee yaa ngi tiit fan la àdduna bi jëm est-ce que du demaat ci troisième guerre mondiale xamuñu ci dara te loolu nag ñëpp ci war def seen it itte pour mu bañ a am bu amatee rek àdduna far nee na moo xam ci suñu continent yi ñu nekk la ñun noir yi ñoo ci gën a dee walla ci yeneen adduna la nee na ñu ngi saliye guddi gi nu xayi layla laylata man guddi ki nga xam ni bi zuhurihi ci feeñam gi mu feeñ ci la gott ya amul woon dara lu ñu mën a jëriñoo ca la nekk ay jardin ba ñu mën koo jëriñoo ne bi yonent bi juddoo suuf dafa nëtëx garab gu daawul meññi meññi garab gu daan meññi naqari meññi neex ne loolu la àdduna rab yeeg insectes yi sax teeru nañu yonent bi ak yiw gaynde dajeeg kéwal fóonante ak moom bukki dajeeg bëy ni ko kaay ma boot la xaj dajeeg golo nu ko nañ partaan waay nañ dem kër ga naa ni attaay nee na lépp ci juddu yonent bi la am mu ni te ñooñu amuñu xel mu ni waaw ñun ñu am xel nag mu bàyyeel ñu téere bu day na alxuraan noonu la ñu war a dundee ndax dañu war nekk di metti metti la te kenn ku ne di mettital sa morom def ko rek lam bi xaw ma ku man sa morom daan nee na déedéet guddi gii ñuy màggal tey borom ba mu ñëwee nee rab yi sax sedd nañ ko cër ba loolu lañu mujj def kenn ra kenn euh, kenn bugalatul kenn mooy nag su ko defee kon mi ngi gërëm ñëpp di woo ñëpp ñu delloo ci seen xel te jéem a sellal seen biir nee na leeru yàlla ku sellalul si biir doo ca am waaye ku ko sellal rekk am bala ngaa sellal si biti da sellal si biir nee na mu ni li ñu dal moo di dañu tabax néeg rafetal mbedd yi tabax marché yi te fàttee tabax suñu biir neente kër gu rafet borom biir bu sell moo ci war a dëkk ki sellal biiram ba noppi moo ci war a dëkk waaye defar sa néeg te defaral sa bopp defaral sa jikko da gedd da mer dangay saaga dangay jël jël yi jaambur ci kaw tooñ dangay da leb te doo fay te doo fay waaw nee na nañu examiner waat suñu bopp ñu seetaat biographie yonent bi fi mu jaar yëpp ak ni mu doon defe ak ni mu doon doxali dundam te mooy suñu tuwaay bi gën a mag su ko defee kon nag euh, réew bu yàqoo ña ko moomu ko yàq dañu war a delluwaan ak seetaat seen bopp nañuy defaraat réew mi ne nañu seetaat nañ ci bopp nee ci niveau yëpp ci niveau xale yi jàng nañ leen di yare nañ leen di wax valeur xam-xam ak won leen suñu réew ni mu soxlaa ay borom xam-xam mais jàng ba am licence bind leetar man mi mësul dugg leer école ma ti ma tiire ay fot tiire ay fot kon njàng yi mi dëgëratul nee na dañu war wut programme bu dëgër force Khalil, yi ñu jang mu ndax super cadre ñoo am ay super cadre te biir yar bobu buñ gis des musulmans ñoo nekk Sénégal 95% des musulmans suñu nangoo laïcité yar la waaye bu ñu yarul woon duñ ko nangu kon dañ naan réew mi réew réewu lislaam la waaye pour tolérance ak dëkk ak ñi dul jullit ci jàmm moo tax ñu nangu laïcité biir laïcité boobu nag dañ ci war a dëgg tabax suñu réew ci kaw dëgg tabax ko ci kaw jëfante bu rafet tabax ko ci kaw yërma yërmante tabax ko ci kaw jub nee na loolu mi ngi koy dénk mboolem citoyen yi nekk ci Sénégal ak yi nekkul ci Sénégal ak fu ñu mën a nekk gannaaw loolu nag mu ni mi ngi gërëm teewaayu kilifa diine yi ci Sénégal توايو جابوتو طريقي في السنغال ماغني باني سوس طريقه واخو ني سوس كو بور نيك اي نون طريقه دو دار لودو والو يارانتي رك لا كي بي يارو نيخ كي بي يارو نيخ واي ييب نكو شيخ الحاج مالي واخ رك الطرق كلها الى الرحمن موصله مسلكه يا جاني Seydi Hadji Malick ne tariqa yëpp ci yàlla li jëm boo ci sóobu te defar sa bopp def la yàlla wax daa fekk yàlla fa mu toog soo ci sóoboo te defar woo nag doo fekk yàlla fa mu toog mukk parce yàlla ku jëm a dem da ngay defar sa bopp nag am nga nooy mel seetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla mbugalee woon ko lu nekk rey jabaram rey tuiteuram Aba Talib ndeysaan waa màkk yuuxoo ko sànni ko doj bii doj dal ci kostanam dagg ko muy naaj bii dal ci bëñam damm ko yooyu yëpp mu muñ ko teewul mu ngi suma waji dal daal ko def yeb mu muñ ko na wut lu ko soulager dal di ko inviter nak pour mu dem ko asman moko massa am yàlla inviter la yobula fa mu nek waye neena ba mu ñewé yar ba mu woné moy xol ku dul man xol li ci ne bi ma ma zaagal basaru wa ma tagha ne xolam debordewul man rek la xool wax ak man dem pourtant am na ñu ni gisu ko demul daf ko gént rek am na ñu daf ko gént ay borom xam-xam ñoom loolu leen seen xam-xam jox waaye Seydi Hadj Malick moom daf ni daf koo gis jox it preuve ya su ko defee na kon nee na ah ñoo ñëpp ngi leen di jox cantam kilifa diine yëpp ak seen délégation yi ñu fi yabal nee na association yi ci réew mi yëpp yu lislaam yi mi ngi leen di sargal ilimaan yi noonu muqaddam yi noonu boroom xam-xam yi noonu fédération yi noonu dawaayir yi noonu nee na ak teewaay bu tedd bi nga xam ni gan ñi jóge maaw ca Sa Majesté ak gan ñi jóge Amérique muy suñu mbokk yi di suñuy xarit kenn ki moo doon jàng alquran kenn ki moo di imaamu new york lislaam rek mooy seen itte xam nañ leen bu baax a baax suñu jàkka ji ñu am ca néew yar moom mii doon jàng alquran moo teg première pierre ba ndax boobu kenn mënul jóge fii dem ndax jàmp ba mu jàmp nee na mi ngi sant président de la république mi ngi sant gouvernement mu ngi sant sahibul jalal Mouhamadou Sadis mi ngi sant mboolem ambassadeurs yi mi ngi sant mboolem parti politique yi mboolem société yi nee mi ngi bége teewaayu ñi jóge ci réew yi jóge senegal mel na Gàmbeek Mauritanie Maleek Guinée Guinée Bissau nee ña fa jóge ñëpp ci ay mbokk ay mbokki taalibe nee mi ngi leen di sant te mi ngi leen di ñaanal yàlla nee mi ngi gërëm taskatu xabaar yëpp yu góor yeeg yu jigéen yi ak képp koo xam ni euh, teew nga walla nga bokk nee na ba tey mi ngi leen di fàttali rek li mu waxoon njël njël génn bi mu nekk chiaaru euh, devise u gàmmu ren gi xam-xam ak jëfe xam-xam yuxaqiqaani al amal boo amee xam-xam te jëfewoo ko amul njariñ boo ko jë boo jëfee te amoo xam-xam tànk boo jéggi njaaxum la kon yooyu ñàkk rek ñooy ànd nee na ñu dellu xoolaat suñu Sénégal gi li fi am ci xam-xam ñu natt ko ndax doy na nee na ñu seetaat valeur jikko yi nee ñu ñu ñu waxtaane ko nee ñu sellal jëf yi te rafetal ko ci diggante yi bu ñuy jëfante nee ñu defaat ay étude ci daara yi maanaam këri sëriñ si ci yar bi ak jàngale bi fuñ sa toll ndax avancé na wala avancé wul nee na ñu exploité manaabir yi ci jàkk yi ak yi ci jumaa ji parce que nee na yi ci jàkk yi ak ilimaan yi ci jumaa yi chance bi ñu am sëriñ si amuñu ko homme politique yi amuñu ko nee na ñoom am nañu chance dajeeg nit ñi juróomi yoon par bis ne kooku nag lu mu bëgg a def ci nit ñi mën na ko def ci ñoom mu ne kon nag mi ngi wax ilimaan yi ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu ci jumaa yi bu jotee ñu def ay xutab ay am njàngale am njàngale ci biir jumaa yi nee na am na jëfandiku bu rafet bu buuru Maroc jëfandikoo ca Maroc moo di jumaa ju ne mu samp fa benn imam buy jàngal nit ñi gratuitement nee na góor góorgóorlu ci xale yi xamal leen principe bi l'islam xamal leen principe bu tariqa bi mu nekk lu leer nañ ndax ñu mën a am sécurité ci seen xalaat ba kenn dootu leen mën a fëkk wala kenn dootuleen mën a yàq nee na ci biir société bi nañu góorlu ci njàngu xale yi ndax ñu mën leen a aar ba tayaaraat courant yi nga xam ni mooy yóbbu xale yi ci ñuy def lu nekk du yegsi ci ñoom nee na loolu yëpp nag buñ koy def pour tabax Sénégal a tax Sénégal am sécurité am stabilité euh, taayus ak silmi am fi la cohabitation pacifique ak cofeel ak mbokkoo ak respe boo xam ni bii dañu koy séddoo ku nekk ameel ko sa morom xale yi ameel seen wayjur yi respect seen wayjur yi taxawu leen ni leen war a taxawoo nee na ñun ci suñu yopp it nañu xam ni yonent wax na ci benn xadis te noo ko moom laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axi ma yuxiba li nafsi yonent bi naan kenn ci yéen du mën a aji gëm te du la mu bëggal la bëggal mbokkam nee ñu yaraat xale yi ci sawar yar leen ci wayjur bu ne ne war nga yar sa doom ci ñu teela a yeewu teel julli teel a jàngi bu ñu wàccee ñëw lekk ñu seen heure yi julli yeeg heure yi jàng yi nañu defante nee na yar leen ci sawar waaw ñun ñi ñëpp tey mu buy weex luñ daan def tëddi ci suuf ah, tëdd ci suuf dem ci gétt ga jëli meew nga ni daan na fekk ci yoon bi may ñuur ko di ñëw jóge cànd tab taw bi di ma dab may jëlee suma bàyyi meew waaw xëy na ni jamono laajatu ko waaye nag ba tey laaj na doom liggéeyal bàyyi nag dimbale ko ma doon waxtaan ak suma benn xarit dafa amoon xaj bu rëy ca Dakar ma ñëw nag mu di ma nett mu ni papaam daf ko doon seet si mu ni wiyee bi muy jubee bunt bi rek xaj bi song ko wiyee dafa daw man ko gi nga xaj rek kay yar xaj nan laa ko ma ne ko xaj rek mooy yar xaj wàcceel sa xaj bi دوم جلي بجلي نيو نكالي أمي خدش كرم نان سباي دفني وندي لسيت خدش بسونغو كو مدعو أنا كو خدش كن يمي وكو أنا كو كم بتشيل سخدش بي ت باي لين بيجي مو خدش بي مدام جاني بنان خدش مدعو جوكا يا خدش بومك بمر فاسكو يدي ريه nekk naa moom ci suba ba trois heures mu tongal ko ci benn ruq mu fa bunt bi sàngoo ko ba gendarmerie ñëw mujj ñëw rey xaj ba génne ko na xaj ba def ko na man ko c'est très bien doomu njiit bu yow na yow looy doyee xaj xaj dama benn mag waxoon ca Dakar rek bu ma dëkkaloon muy benn xaj di ko mbow dañuy dëkkoon ak benn portugais bu amoon xaj muy mbow góor gi mer ni ma xaj rek yar xaj mais wax na dëgg ni kon nag ñu digal xale yi ñu bañ a roy waa Europe ci lépp na am luñ leen roy ci itte waaye buñ leen roy nag ci melokaan mu ni ñu wax leen ñu ittewoo xam-xam ak jëfe ga nee te occasion bu ñëw ñu jéem ci profité nee ndax yonent bi nee na na ci juróom balaa juróom a am na nga profité ci sag ndaw balaa ngaa màgget na nga profité ci sa temps bala ngaa ñàkk temps na nga profité ci sa wér bala ngaa wére di na nga profité ci sa am-am bala ngaa ñàkk nga profité ci sa dund bala ngaa dem ëllëg fekk yàlla nee na responsable yi jéem a yennu seen responsabilité ba mu mat sëkk bàyyi yaay yi jàngalekat yi gouvernement bi opposition bi mag ñi ilimaan yi borom xam-xam yi yarkat yi fonctionnaire yi commerçant yi borom métier yi nee na bépp citoyen دينا نخ واحد يا ننتي بوخ كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته كان كل كيسين ريسبونسابل بروم ريسبونسابيلتي بو نك نك الك نا خامني يالا دا نكو لاج ريسبونسابيلتي بوبا لان لا تي جيف تي لو باخ أنا اك ليمو واخني na nga ragal yàlla foo mën a nekk nee te ñaaw ñaaw boo def góor góorgóorlul ba teg ca rafet rafet ndax mu far mu far ñaaw ñaaw ba nee na nga jëfanteeg nit ñi ci jikko bu rafet te bañ jëfanteeg ñoom ci jikko bu ñaaw nee na mi dellu di yeesal wooteem ci njaboot gi ñu dellu dundalaat suuf si ak mbay nee na te ñuy mottali seen ñaan ndax adduna bi am jàmm mu ne na di ñaan surtout yéen waa tariqa bi baad kulli wasifatin waaw baad kulli الورد اللازم باسكو الطريقة بي نيت يوي رك لا الورد اللازم والوظيفة اليومية وذكر عصر يوم الجمعة يوي مولا وار ياكو نان ورد بي غاي ديف وظيفة بي غاي ديف اك حضرة الجمعة يوي يوبو باري بلا غين تقليكو جوخ لين بني دوك نان لو ار ريومي لصبي جابون بي نينا سيان كو سخورين بديون دين جي شانشمان بو ري بو ام تي سنغال اك لور سنغال دان كو ري موني كفوفنك ا نيو مان كو جاكلين جيب من عميد الأسرة شيخ أحمد تجاني سي وكل عام وأنتم bi alfi alfi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu kon nag loolu rek la ma waxoon ne naa leen ko jàngal moo ko bind it jox ma jàngal naa leen ko ku nekk boo demee dégluwaatal rajo walla nga dégluwaat magnétophone loo ci am rek nga nga jéem seet loo ci mën exercer ci sa kër su ko defee na kon ñu ngi sant ministre bi ci temps bu yàgg bi ñu jël waaye itam bés bi loolu la laaj ñu wax ak yéen jox leen yóbbal bu ngeen yóbbaloo ci seen kër yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ñaan nag tàllal leen ñu ñaan na kenn ku nekk jàng fatiha yéen a ko déggandoo